Salut, salut les amis. Salut, salut, salut, salut, salut. Koufinek, fi nekk gal fi nekk ku dugg la Shake Non <clears throat> ku dugg like gars yi bien voilà da ngeen di am like leen partage leen ñu wax ci aji Sarr ana aji, ana aji dafa mel ne léegi ñu ngi gis aji, ana aji, ana aji, papa papa ale mi ngi wax ana aji dafa mel ne jeudi ku dem tribunal bo teele yow di nga gis aji, ndax aji, dafa ju daf ko woor ñi doon wax naan Adji Sarr mi ngi Gàmbi gars yi laaj leen partage leen laaj leen partagé leen ñu doon wax aji Sarr mi ngi Gàmbi Adji Sarr mi ngi Gàmbi Adji mi ngi Gàmbi ana Adji ana aji dégg naa juge bi convoqué na ko Adji Sarr dafa war a dem devant le juge du huitième cabinet le jeudi fan laa ko gisatee sax wax ñu est-ce que wax ñu jeudi à dix heures xaw ma kon lolu suma paré ci lolu dama bëgg aussi ñu wax ci pap Alé man mom la doon sétane ni pap Alé la doon sétane parce que pap Alé tamit dafa doon def live li ma doon def nak la pap Alé def fram fache, kabi, bi tégal leen audio bi fram faccé ki ne ma ngi dugal Sonko wa ba tay Biram Souley Japrenko, nañ ko placé sous mandat de dépôt ay way mom ak Abbas Fall ay way ay waay jële bàyyi nañu Fatima jigéen ñi dafa mel ne bàyyi nañ leen ana aji a ah, Kira ngoo Kira namoon nañ la aji dinañ xam fan la nekk jeudi parce que il paraît que aji dañ ko juge bi daf ko war a entendre daf ko war a entendre euh, le jeudi defe naa loolu laa liiroon de xaaral ma xool fan laa ko liiree ana aji ana aji mu ngi ni aji Sarr la masse sera entendue ce jeudi Waouh, Adi ce jeudi 25 février à 11h par le juge d'instruction du 8e cabinet une information de Sénégal confirmée par l'un des avocats de Adi Saar, maître Aladjouf Dengue, Dengue. maître Aladjouf, je Diouf xam nga vous rek la xam nga maître El Hadj Diouf lii la yàkkamte gars yi laaj leen partage leen laaj leen partagé leen maître El Hadj Diouf nee na jeudi si yow gars yi gars yi gars yi seen yaram tàng na de xam nga lu tax ñu bugg def loolu bu ñu entendre aji Sarr rek après dañuy convoqué Sonko xam na waxoon naa leen waxoon naa leen juge bu ñëwee day reprendre lépp juge bi du ñëw rek xool procès verbal yi rek procès verbal yi rek waaw ah, Adji Adji feeñ na aji feeñ na Adji mi ngi ci juge bi dafa war a ju dafa war a wuy juge jeudi xam naa ne journaliste yi dinañ ko koj dinañ ko photo dinañ photo oto bi muy wàcc loolu yëpp gars yi dinañ ci bàyyi xel maître El Hadj mën na am dina def conférence de wax kii nee ne maître El mooy iblis <laughs> yaram seen yaram tàng na de gars yi seen yaram tàng na gars yi foowuñu gars yi dañoo bëgg avancer dossier bi dañ ko bëgg avancer Ndeye Ndiaye da ngeen def laaj leen gars yi like partagé bu ñu waxee ci aji ba pare après dañuy dama leen tegal pap Alé tegal leen ñoom Karim Xurum Xaq parce que ñoom it dañoo def benn conférence de presse Karim Xurum Xaq def na conférence de presse moom ak euh, Dame Mbodj xam kii ne affaire Sonko bi du mujj fenn loolu laa foogoon de waaye waxatuma loolu de man de waxatuma loolu Macky Sall génn RFI xaw ma RFI la xaw ma waa rajo France internationale Sonko génn def benn euh, communiqué. ba pare Sonko nee na dina wax est-ce que tu lay wax wala suba lay wax ah dafa dans les prochaines heures kon Sonko nee na dina wax assemblée war a def plénière mais ba léegi bëgguñu annoncé Birame Souleye Abbas Fah, sous mandat de dépôt les choses s'accélèrent assone Diouf arrêté d'Or, sen arrêté Guy Marissania, arrêté gii nee na dafa mel dafa am fu ma liir ñu ne Guy Marius Sagna ñu ne dañ koy torturer xaw ma gars yi laaj leen partagé leen mais la la plus grosse nouvelle mooy que ne aji Sarr jeudi dinañ ko entendre jeudi dinañ ko entendre dina dem tribunal Mamadou du juge bi nu mu tudd tuddul Mamadou Seck huitième cabinet moo koy entendre kon bu demee dina wax li mu waxoon yépp dina ko waxaat kon Adji Sarr ñi doon wax ne dafa bañ ne du du dafa bëgg bàyyi Adji Sarr bàyyiwul ndax Adji Sarr elle est kenn mënu ko force dem tribunal kon lii dafay wane ne gars yi travail bi ñu war a def ci ajisaar Sarr Adji def nañ ko pour contrôler ko pour waxloo ko li ñu bëgg wax nekk ko soxlawul ngay wax ak sa papa soxlawul ngay wax ak ndijaay soxlawul ngay wax ak kenn parce que dégg na pàppam euh, gisu ko ay tàntam gisuñu ko ay ndijaayam gisuñu ko xamuñu fu mu nekk kon Maître la Hadji moo xam fan la nekk ñu doon wax ni aj Sarr dañ koy génne réew mi pour euh, fay affaire bi dañ koy génne réew mi dañ koy rawale ñi naan mi ngi Gàmbi ah sama genre naan nañ ko dañ ko war a utal passeport diplomatique mu dem Canada ñu fàtte affaire bi kon gars yi bëgguñu fàtte affaire bi Macky Sall dem na RFI Macky Sall nag ah sànni na xeer Sonko Macky Sall sànni na xeer Sonko parce que moom nee na yoonam nekku si affaire aussi basse oh non non non saa yi Macky xaj xas na Sonko yi xaaral ma bind leen sax lu mu liir lu mu wax exactement si Macky sànni na xeer Sonko de Macky sànni na xeer Sonko anamu sax ana article boobu. Macky daal nee na xam nga lan une affaire aussi baas moom du ci duggu maanaam lii daal affaire bi daal dafa suufee daal ci moom moom moom du ci duggu xam naa nag loolu tax Sonko bu Macky waxee loolu xam nga ba Macky waxee loolu moom it Sonko moom it génn euh, daal di daal di ci Macky parce que Sonko nee na Macky Sall moom mooy instigateur bi waaw. en tout cas Adji Sarr Adji saar comme ni mu ko waxee moom la ñëpp di tudd Adji Sarr Adji Sarr jàppal Adji waa gars yi laaj lay partagé leen Pape nag li ma doon def temps yi yëpp moom la Pape Alé def temps yëpp maa fi nekk di di faram-fàcce di poser ay question di faram-fàcce xam nga mais Pape Alé tey loolu la def ci émission am waaw tey émission am dafa ñëw mu jël dossier bi di ko faram-fàccee benn par benn waaw xaaral avant boobu gars yi xam loo xam ci loolu loo xam ci le fait que juge bi waaw waaw déglu déglu dégg nga dégg nga waaw Macky Sall na kii nee na Pape Alé nee na Macky Sall du du du du tukkuleer <laughs> Pape Alé nee na Macky dafay dóor dafa naxtu dafa naxtu tukkuleer yi nee na dafa nax Macky séeréer la dafa nax tukkuleer yi waaye du du tukuleur bu demee Fuuta buñ demee buñ demee Fuuta waaw waaw waaw guerre lañ nekk waaw muy Sonko waaw dinañ ci wax mais man surtout Pape Alé ni mu faram-fàccee Adji Sarr bi laa gën a bëgg ñu déglu quoi waaw moom laa gën a bëgg ñu déglu mais avant saa wax leen ma la ngeen ci xalaat la ngeen xalaat ci aji Sarr juge bi convoqué ko ñu bëri dañ ne woon aji saar dafa daw dafa ragal génn na mi ngi Gàmbi tey ñu yow maître El Hadj wax ñu ne jeudi juge bi daal di ko convoqué lu tax juge bi yàkkamti lu tax juge bi yàkkamti kon dañoo bëgg jàpp Sonko fi mu nekk nii loolu leen drôle lu tax ñu yàkkamti waaye gars yi laaj leen partagé leen la ne juge bi yakamti euh, c'est un raté non c'est pas un raté c'est un sénégalais xam nga gars droit légui ñi tamit Karim ñom Karim xurum xaq dañuy wara def marche gars attention le bi tak samedi gars samedi samedi le bi ndara samedi le bi ndara tak parce que ñom Karim xurum xaq ñoom karam xurum xàq ñoom nee nañu nee nañu dañuy marche kenn mënul ci ñoom dara karim kurum xàq dàmbooj ah bëggoon naa leen tegal élément bi waaye xam nga élément bi fan la jaar karim xurum xàq dàmbooj ak yeneen gaa def nañ conférence de presse nee nañu dañuy def benn marche euh, samedi dañuy dem préfecture suba pour demander autorisation waaye nee na ñoom demande wuñ sax autorisation dañuy dem pour yégale pour yëgale pour yégal nit ñi ne ñoom dañuy marche Macky jox leen ko mu ñàkk leen ko jox ñoom nee nañu dañuy marche moom laa leen bëgg tegal mais waaw xëy na ab élément bi mën na am dina ñëw mais en attendant xaaral ma ma tegal leen Pape Alé Papa lui Papa Ali, bi on va voir bu ñëw mais en tout cas Sénégal waaw bi une conférence de presse Nous sommes ci mu xaq samedi dernier, marche la place de l'indépendance la nuit dem place de l' indépendance place de l' indépendance la dem samedi est ce que bala samedi du leen jàpp ñoom ñi ñëpp sax est ce que bala samedi duñ leen jàpp Harlan, ñi avance waaw xaar leen avance, ma avancé rek ah. dama ko bëgg avancé ba ba fu Karim dama ko bëgg avancé fu ak Karim mais en attendant foofu di ñëw. Damboo ji gi nii Damboo ji fippu. dégg nga. dégg nga. dégg nga waaw. waaw. Mhm. Damboo ji waaw. waaw. waaw. sama yoon nekk ci waaw. commencé na ko gay ah yeen yeen mak du seen morom nak gay neexul ba neexul gay neexul ba neexul neexul ba neexul mais mak yi mo len man sérieux parce que mi ngi len di japp ben par ben wax deug mak du seen morom neexul ba neexul département yi dañu organiser wu da nga nek fi di def ay ay conférence de presse <laughs> dégg nga waaw wax rek dañuy wax rek dañuy wax rek dañuy wax dañuy wax rek bu continuer te mi ngi koy def moom saa yi dégg nga dégg nga ah. Macky Sall est un président qui les valeurs non mais Macky moo leen mën gars yi neexul ba neexul mais Macky mi ngi leen di roñale benn par benn dégg nga pacifique ah dinaa la tontu Tina dinaa la tontu lan la ñu war a def Tina dinaa la wax lu ñu war a def mhm. Tina dinaa la wax lu ñu war a def ah, mais Macky moo leen mën.

mais wax bi rek du tax du noonu ngay kiiwee. mais de façon ferme et résolue ñu woon ko ne réew mi nag dañ dañoo bëgg dictature bi nga xam ne moom nga ñu bëgg imposer mu dakk waaw loolu mooy message bi ñu doon lancé. dëgg la lancé Sénégalais yëpp. après ñu déglu Karim Xurum Xaq. ak de naan man maa ngi leen di soutenir. à distance. waaw kuy kuy ku nekk ci réew mi na xam ne la Sénégal est en danger. dëgg la président Macky Sall li mu bëgg a def bu ñu ko nangoo. waaw daañu delluwaat ci buumu njaam. dégg nga ñoom ñëpp dañ leen di jàpp benn par benn ñoom ñëpp ñu ngi leen di jàpp benn par benn waaw Macky moo leen gën a muus nag gars yi benn nga dégg nga waaw gars yi laaj leen partagé leen après dama leen tegal Pape Alé Niang euh, waaw. léegi kii ne ma wax yow yow foofar man damay analyser dama leen di wax man Sonko laa loolu kay leer na mais nag dama leen di expliquer ne Sonko laa mais dama constater Macky Sall mi ngi leen di jàpp benn par benn ñoom ñu nekk fii di def ay presse ay conférence de presse ñu leen di jàpp par benn par benn loolu kay dëgg la ah déglu Karim ñoom ñii léegi nga dégg ñu jàpp nañ leen léegi nga dégg ñu ne jàpp nañ leen ñoom ñii ñëpp.

waaw waaw waaw waaw kay dañu war a def sans prévenir waaw kay. waaw ah, kay seetaan nañ ko ba pare. merci. su news merci. Euh, waaw wax ji mi ngi bëgg bëri <laughs> merci Zozo yéen xam ngeen fi may waxee kay wax rek. wax rek dañuy wax rek. xamal ko sëriñ si xamal ko sunu yaay. waaw te uh-huh. uh-huh. dégg li ñuy wax ñoom dañ koy dañu ne lii def. fu ñuy demee nag foofu la leen di jàppee ñoom. nit booy def doo wax da ñëw nga def. mais ñëw di def conférence de presse di expliquer ne lii laay def lii laay def lii laay leen di xaar rek. yow kay waroon nga yónni benn nit rek waaw ah, merci Babacar bàyyi leen ñu wax rek dégg nga dégg nga foqati pouvoir dégg nga foqati pouvoir foqati pouvoir waaw dégg nga samedi la wax samedi place de l'indépendance gars yi ay ñu quoi dañuy fo dañuy soob dañuy soob waaw mënuñu xeex ñu mënuñu xeex place de l' indépendance dafa sori gars yi amuñu paas dem place de l' indépendance oui ñu nekk fii di wax rek jub kan mooy jugee ba Pikine nan day dem place de l'indépendance gars yi nañu waxante dëgg place de l'indépendance dafa sori obélisque sax moo tane woon ah kii nee na deme frappe obélisque waaw il va être arrêté waaw bi yow ku la wax ne frappe dañuy def ah, euh, kii wala yaay da ngay jéem a woote AMTV day jéem a woote gars yi dam leen di wax kan moo ndar kan mooy dem place de l'indépendance kan mooy dem taxi kan moo am passe taxi di dem place de l'indépendance ah mais on va voir on va voir mën na am bii passé différent mën na am bii passé différent waaw léegi loolu mooy conférence de presse Karim mais Karim il a l'air très stressé en gars yi xool ngeen kanam bi Karim il a l'air très stressé mais c'est normal qu'il soit très stressé parce que déjà nañu à son jour. Guy. même même lui il est il est stressé regardez le il est très stressé Guy. même Dame il est il est stressé le droit. Ding. dégg Wow. waaw demande d'autorisation dañuy yëgale dañuy yëgale laaju ñu pour ñu autoriser ñu waaw dañuy laaj dañuy yëgale dégg dañuy yëgale ni danoo war a daje waaw te réew mi amul hmm. fenn dañuy foo na ñoo tere ñu mën faa daje dégg kon nag suñu dañuy foo bu ñu demee place de l'Indépendance ñoom rek ñoo fay nekk ñu jàpp leen comme bële paas rek place de l'Indépendance dafa sori gars yi laaj leen partagé leen xam nga non c'est-à-dire waaw waaw dégg ban sénégalais mooy bàyyi li muy def naan day dem place de l'indépendance kan mooy jug naan jug naan dem place de l'indépendance xaar ma expliqué la gis nga gaay gis nga gaay ñii Macky Sall da leen da mën da mën mi ngi leen di jàpp benn par benn léegi ñu jeex léegi ñu jeex ndax dañoo jàpp dix-neuf gosses ba ñu jàppee dix-neuf gosses ñu sacrifié booy yooyu ne damay dégg parce que ay nit jógee ñëw ñëw ñëw Sonko ay booy am na ci ñoo xam ne ay étudiants lañ am na ci ñoo xam ne ay élèves lañ am na ci ñoo xam ne dañu am seen liggéey bàyyi seen liggéey ñëw dem kër Ousmane Sonko ñu jàpp leen ñu sacrifié booy yi dañ leen sacrifié gars yi dañoo waxante dëgg dañoo sacrifié booy yi bàyyi leen xanaa ça fait presque léegi mat xanaa léegi mat deux semaines bañ leen jàppee. mais prison dafa metti ñi naan dañ leen di torti rek torturé wuñu leen mais prison ñëpp xam nañ ni prison Sénégal surtout bu dee rëbës lañ leen yóbbu dafa metti ñu bàyyi leen foofu bañ leen jàppee boobu Assane Diouf kenn jàpp ko boobu euh, Guy Marius Sagna kenn jàpp ko boobu Clédor kenn jàpp ko lan la ñu def pour libérer boo yooyu ana waa Y'en a lañu def pour libérer booy ana Sonko lan la def pour libere booy gis nga booy xeex da ngay def bloc da ngay def bloc boy xex da ngay def bloc ne bo laalé kenn laal nga ñëpp mais ku nekk da ngay tok sa petit coin gis ñuy sacrifier ay nit benn par benn di leen sacrifier di leen sacrifier légui bañu jappé 19 boy kenn waxul loolu moo jox courage Macky Sall tamit ak ak ak procureur yooyu ñu xool gis Fatima xawma lan frappe ñu japp ko bañ jappé Fatima est-ce que Grima Guirima Sagna génn na ak ak ak wa frappe dedet te pourtant Fatima ci frappe la bok dañ ko jàpp bàyyi ko jàppaat ko. ñoom ñëpp noppi ñu jàpp Abass Fall Abass Fall sax la njëkk a jàpp conférence de presse ñëpp seetaan yaa may dégg léegi nag ñu jàppaat Fatima tey nga toog démb nga toog ni nga dégg ñu ne jàpp nañu euh, Assane Diouf kenn waxul Assane Diouf bañ koy jàpp booy nekk fa di sóob waa Pikine ni ngi noonu dañ ko fekk këram lañ ko fekk géejawaay Assane Diouf géejawaay la dëkk est-ce que waa géej waay géejawaay génn nañ ne kenn du ko jàpp comme ni ñu defoon Sonko Sonko gars yi dañoo wër ne fii kenn du ko laal xam nga affaire bi du ay marche du ay nañu tase fii du ay nañu tase fa gars yi mënuñu xeex gis nga guerre day saf mondial man nag encouragé wu ma kenn mu dem xeex man dama ko expliqué Macky na damay analyser rek sa à dire moom buy xeex day xeex jusqu'au bout man sax damaa yaakaaroon ne Macky day dellu ginnaaw mais Macky delluwul ginnaaw mu ngi ci logique am mi ngi ci logique am yox-yoxewul dell ginnaaw mu ngi leen di jàpp benn par benn pim parce que xam na ne bu leen jàppee ñoom ñëpp dañuy fipp moo tax keroog ba ñuy def ñoom ñett ba ñuy def seen conférence de presse Karim Xrum Xax Clédor euh, Assane Diouf ñoom loolu lañu xam moo tax ñoom ñett ñu ñëwandoo ak dàmbooj sax ñoom ñëpp ñu defandoo même déclaration parce que xam na ne Macky ñu leen jàpp mais jour boobu li ñu waxoon moo gën a graaw jour boobu ils ont appelé à la révolte à la résistance

place de l'Obélisque sax ñu koy tàmm Colobane mi ngi fa HLM mi ngi fa euh, waaguñaay mi ngi fa même waa banlieue bi sax mën nañ jël tata léegi jóge parcelle ñëw waa Guédiawaye tamit léegi boo lu place de l'Obélisque bu dee da ngeen di xeex rek dee da ngeen di mais ngeen ne nag dañuy jóge fii dem place de l'indépendance noonu ngay mobiliser nit mais doone ku nekk jëlal paas nga dem obélisque nga dem place de l'indépendance mais Karim Xrum Xax mës na ko def a ngi rappelé ba ko policier di jàpp foofu place de l'indépendance yéen a ngi rappelé benn policier ba mu koy jàpp foofu ah mais jàpp parce que parce que parce que kenn du jug sénégalais du jug naan dañuy dem ay place de l'indépendance duñ ko def ñii ils perdent le temps te en plus avant boobu sax am na nu muy demee moom Karim mii gars yi mën nañ ko jàpp faagaagal ko jàpp gisoo leen seen Karim yi nu ñu tiitee nu ñu stressé mais ñoo tiit ñoo tiit comprendre waaw man daal li may wax rek mooy fi mu nekk nii ñoom ñoo gañe woon de ñoom ñoo gañe woon parce que Sonko bañ bañ ko bëggee jàpp booy di ñuy ñëw këram daal di ko wër def bouclier Sonko a gagné mais fi mu nekk Macky mi ngi gagné ndànk-ndànk Macky mi ngi gagné ak procureur ñu ngi gagné parce que ñu ngi leen di jàpp benn par benn benn par bu ñu demee ba jàpp responsable Birame Souleye quand même c'est pas n'importe qui quand c'est pas n'importe qui ñu jàpp ko gars yi kenn waxul kenn kaasul hein? mais mais mais c'est ça la logique quoi la logique bi xam mooy lan ah xëy na nag am na ñoo xam ne dañ ne essentiel Sonko la ñuy xaar ñu ko mais à ce rythme là à ce rythme là même Sonko bu ñu ko jàppee dara du xew man loolu laay ragal à ce rythme là à ce rythme là dinañ jàpp ñoom ñëpp ñoom ñëpp hein? les les têtes pensantes la ñuy les cerveaux parce que Clédor c'est une grosse perte

wala en tout cas dal doo ko def whatsapp ba ñu tay ñu am lu leer lo xamné japp jàpp nañ leen ko waaw bon nak euh li dal léegi boy bi boy bi convoqué nañ ko nu mu tuddati booy euh, Adji sar convoqué nañ ko léegi loloy wane ne loloy wane ne ah Macky Sall fay da fay ki hein ah. il va continuer Macky Sall ne va pas reculer man loolu loolu la may ndóol Macky ne va pas reculer waaw léegi Sonko Sonko daal c'est la clé waaw yëfi daal dafa leer yëf yi dafa leer que ne Sénégal kenn rek moo ko mën a yëngal Sonko wax ji wax ji wax ji wax ji Ousmane Sonko rekk moo mën a yëngal Sénégal. kenn ku la ne mën na yëngal Sénégal Karim Xurum Xaqoo Assane Dioufoo ah, Damboojoo ñoom ñëpp dañuy perdre seen temps Sonko nag nee na dina def discours dans les prochaines heures discours boobu bu génnee wax li mu waxoon parce que Sonko moo leen gën a garaaw Sonko Sonko moo leen gën a garaaw parce que moom du fi nekk gars yi dañ fi nekk xam nga gars yi dañ fi nekk di di def euh, euh, double langage euh, dañuy heure fipp jot na heure fipp jot na ba pare daanelee waxuñu violence waxuñu dara bu fi kenn toj dara bu fi kenn def lii waaye heure fipp jot na waaye bu kenn def violence gis nga booy xeex da xeex Sonko bu génne la lay wax mortel combat la Sonko di may Sonko rek moo mën a yëngal booy moom mortel combat la lay wax di la wax c'est la dernière bataille wala l'avant-dernière bataille lum mu leen jaral nañu ko jaral bu bu bakken rot né mais waxu man waxu ma Sonko il a raison de de faire ça waxu ma il a raison de faire ça mais dama la bëgg essayer ne boo gisee ne Sonko rek mo mën a yëngal dëkk bi fi mu nekk nii Sonko mais même Sonko est-ce que gars yi avertir ñu ko ne ko ah ça waay li nga ñëkkon def daf la dugal parce que lolu amna ñu né appel à l'insurrection là. xam nga. loolu appel à l'insurrection est-ce que léegi Sonko dina amat courage est-ce qu'il va avoir le courage de refaire ça xaar ma xool xaar ma dugal len papa aligna après parce que papa allé dafa def euh, euh dafa def analyse bu bax ci euh, ci euh, est-ce que doone fi waaw tegal na len en tout cas tegal na len conférence de presse ni mais comme nous len ko waxé samedi man gëm naa dara du xew fi la ko waxé gars yi xaar leen ba samedi. en tout cas bu dara di xew du xew a passé assemblée nationale parce que déjà yoon bi yëpp gars dañ koy barricadé mais assemblée dafa sori gaay man gëm naa ne dara du xew samedi rien ne va se passer rien du waaw il va rien se passer rien rien wax ji kay wax ji kay mooy ñoom suma doon ñoom damay toog rek ma xaar ñoom kon mu xàq waruñ sax di woote ay nañu dem assemblée lan lañ fay def lan la ñuy def place de l'indépendance mais yow Sonko gars yi dindee guñu immunité yéen xamu leen sax commission bi kañ lay réunir xamu leen sax commission bi kañ leen réunir ngeen ne da ngeen dem place de l'indépendance pourquoi il faut ngeen bàyyi ba dara am ba dara am ngeen doog a réagir bàyyi leen sax au moins sax bàyyi leen sax au moins commission bi. ñu ne tel jour la réunir fi mu réunion commission pour dindi immunité Sonko dañ koy voilà parce que xam nañ jour jour jour doy la mais leen au moins ba assemblée bi wax wala sax ngeen Sonko mais jappu Sonko parce que du Sonko tant que wul immunité japp guñu Sonko dara xewagul hein? jàpp guñ Sonko dara xewagut ngeen ne ngeen ne da ngeen di def marche waaw marche boobu tax dafa amul sens. marche boobu amul sens boo demee pass assemblée nationale ngeen nekk fa 500 wala 400 et après xanaa doo leen wax ne da ngeen dem foofu pour toj Macky Sall de toute façon nekkul palais Macky Sall Mermoz la dëkk nekkutul palais kon lan ngeen di def foofu lan lan may wax mu naan dañuy foqati nguur kanam kum xàq ne dañuy foqati nguur bi. sur quelle base ci yenn base ngay foqati nguur ci yenn base ah non gars yi il faut qu'on soit un peu sérieux quand il faut qu'on soit un peu sérieux voilà léegi daal man li may wax rek mooy ñoom li ñu war a def xam mooy lan ñu war a toog xaar bu ne tel jour la ñuy dindi immunité Sonko ngeen toog ngeen déglu ngeen déglu seen seen leader Sonko nag si le si c'est lui le général am na ku fi bind léegi Mouné Sonko va sacrifier tous ses liens. ah affaire bi loolu leen hein, pour le moment parce qu'il a une bonne directive de la part de Sonko nee il va parler dans les prochaines heures peut-être parce que disney le il va donner des instructions mais il yi daal man li may wax rek mooy bu leen nangu ku leen sacrifier bu leen nangu man de bu ma Sénégal kenn du sacrifier patriote laa de patriote laa de waaye que ça. di génn di dem ci mbedd bi ñu la fiy dóor ay bal wala dóor la ay lacromagène wala ñu jàpp la tëj la nga sacrifier sa an sa an sa sa nga sacrifier sa sa sa sa sa sa sa sa jeunesse pour lan ana 19 gos yu ñu jàpp kan moo leen wàllu tey ana dis gars il faut être intelligent bu leen nangu ku leen sacrifier ce que je propose xam mooy lan ce que je propose xam mooy lan xeex bi ko da ngeen am général da ngeen am chef am na ku 21h est-ce que Sonko day wax 21h est-ce que Sonko day wax 21h on ne sait pas s'il va parler ou s'il ne va pas parler xam affaire bi lan la am vous avez un général xam nga le général c'est Sonko le général Sonko xam nga Sonko nak mom ngeen wara déglou xex bi yépp lenn la Sonko waxul coup d'état

lo xamné def moko wala parce que dañ ne dama violer légui nak sama sama immunité c'est sacré waaw lolu sax d'accord naa ci combat bobu venez défendre mon immunité lolu d'accord naa ci xex bobu xex bi fofu la commencé won dañ ko bëggone japp peuple bi génn né kenn duko japp parce que député la mais instant bi bo génnee né dañuy foqati pouvoir comme ni Karim wax dañuy foqati ngour ci yenn base ci yenn base te yow amuloo doole amoo nit munoo organiser wu ah waaw léegi daal gars yi euh, euh, xaar leen élément bi laa leen bëgg tegal mais temps yi moom affaire bi su ma koy avancé rek day kii xaaral de kii bi laa leen bëgg a parce que Pape Alé au moins Pape Alé euh, Ben, analyse bu baax ci euh, ci Adji sar mais affaire bi su ma koy avancé su ma ko avancé rek day am problème wa en attendant légui nañu lire ki ne Karim est nul il est trop passionné ah en tout cas ñom li ñuy xeex daal du non xoolal kii Qui né je fais le malin waaw waaw ba tey wax leen lu leen neex rek man de damaa gis ne ana ana ana Assane Diouf jàpp nañ ko kenn waxul ana ana nu mu tuddati Clédor ana Guy Marius ana biram Souleye ah xaar ma xaar ma commencé zappe ay nit te ñi fi nekk fii di sóob di rëy làmmiñ ñu ci bëri Europe lañ nekk da nekk Europe bëgg wax booy dem leen ngeen toj ay kaar wala dem leen ngeen xeex mais yu tax yeen mun leen jënd billet aller simple ngeen dem Dakar ngeen li ngeen di wax boy ngeen def ko yeen ñom ñi di wax fi yépp di wax naan cheikh li ak leg li est-ce que samedi di ngeen bu dee ngi Dakar est-ce que samedi di ngeen dem place de l'indépendance gaay nañ waxanti deug ah ki nee na une manifestation est organisée le samedi une manifestation est organisée le samedi une manifestation est organisée samedi waaw mooy bi wax rek AMTV kenn du dem place de l'indépendance après élection yi Karim Xurum Xax woote woon na place de l'indépendance kenn ñëwul moom ñu jàpp ko fa xanaa da ngeen place de l'indépendance dafa sori place de l'indépendance c'est trop trop trop trop loin Il faut sortir trop trop trop trop alors nous déglu Papa, allez, vous élément bi dina Qui je pense qu'on doit arrêter d'envoyer de l'argent au Sénégal mais vos parents vont vivre comment L'autre <laughs> du solution il faut un autre leader Grâce dina l'essentiel est de mobiliser les gens comment peux-tu mobiliser les gens gis nga AMTV nit ñi mobiliser ci conférence de presse xanaa man maa baax sax di leen tegal conférence de presse pour jàllale seen message yéen ñi fi toog yëpp kan moo yëgoon ko conférence de presse bi gars nañ def benn sondage conférence bi mu leen tegal léegi kan moo koy yëgoon ci yéen ñii nañ waxante dëgg te yéen ñu ngi ci internet bi est-ce que am na ñu ko yëguloon dama leen di laaj ku yëguloon presse conférence bi mu leen tegal waxal waaw déjà Chino te Chino pourtant mi ngi fi chaque jour xam nga yow yëgoo ko SU nee na yëgu ko.

Clédor Clédor moom commencé à organiser organiser gars dans ci quartier non Clédor commencé woon parce que Clédor dafa am expérience boobu expérience xeex daf ko am Clédor am une expérience xeex commencé woon mais malheureusement jàpp nañu Clédor Clédor dañ ko jàpp Clédor c'est le cerveau Les comme jàpp nañ Clédor gars les qu'est-ce qu'ils vont faire déglu dëgg waaw. la jàpp ne moom. waaw Sonko dina booba. Mhm. moom ñoo aji wu am ku woo. waaw ñu dem. ma reer pare mu dem ñibbi diggante vingt heures. Mhm. ak dix neuf heures fekk waa ji toog ci buntu kër gi. Mhm. mu ne ko sëñ bi. fii de place liggéeykaay la te heure bi sax heure ko fa la parce que def fii. waaw mu ne ko maa ngi jégalu. Sidi Ahmed. déplacé wu dem taxaw ci. buntu goudron bi. waaw bu mu taxawee foofu sama jëkkër duggaat ci biir kër gi. Dakar mhm. matin génn di jëndalaat sama doom bi meew. waaw fekkaat waa ji si porte bi mu toog. Mhm. mu dellu ko dàqaat muy deux fois. Mhm. sama jëkkër jënd meew ba pare duggaat ci biir kër gi. waaw. yàlla boutique woo ko téléphone na ma la mës ku ma doon séen nga koy daal ñëwaat na taxawaat ci buntu waaw mu dëkk na ko yow kanaa tëjoo vingt une heure jot nga mu ne ko si kaw mm-hmm. mm-hmm. fekk. waa ci gardien gouverne espion la espion Macky. man <laughs>

kii nee na Clédor Macky Sall lay loolu xaw naa ko xalaat démb de billaahi wallaahi taala ba ñu jàppul Clédor Clédor bañ ko jàppul dama ne mais lu tax ñu jàpp ñëpp jàpp ñu mhm. waaw waaw dégg waaw waxu ko dara mhm. kay partagé xaarma woon rek like partagé man di ma woo ko waaw ma ne kii nee na Clédor espion la man naa <laughs> sax caméra dama xool ci caméra waaw nga ànd ak ku góor like leen soo daawal ñëw ci kër gi mhm. mais non xadi moom ndey xadi moom histoire bi day changé rek dëgg la. Mhm. waaw. waaw. waaw. Mhm. mu la wax. ndey xadi damaa ci analyser ay affaire léegi nañ déglu Pape Alé rek. Mhm. Pape moom. waaw. déglu leen waaw. dégg ngeen dégg xam nga question yi laa doon laaj keroog. Mhm. dégg dégg ngeen nga. damay laaj day uh-huh. ah man de la posé naa question yi ba pare waaw. nit mm-hmm. waaw une heure waaw gars yi like leen tamit partagé waaw nee na kooku ñu dëggal kan la ci li ñu jàpp Sidi Ahmed la dégg nga waaw partagé like dégg nga kooku ñu dugal kan la. Sonko mardi la fa ñëw. waaw. mu duggee ci kër sama jëkkër téléphone mu ma. waaw. nga Sonko mardi la fa ñëw. Mhm. aji woote woon na lundi. waaw. Wow. Sonko day kon am su am Sonko am kon aji am na ñu dem planifié dara. waaw. parce que bu nit di ñëw di Wow. fen rek. waaw jarul woo ay nit. la. kër ga waaw dëgg la bonne question waaw mu ne ma sax xam nga ne Sonko mi ngi ci kër gi. waaw ko waar. ma waar ma coupé ko ba léegi sax tontu ma ko pour yàkkamtee jot aji. like leen. ma coupé ko woo aji. partagé leen. dix minutes ma jot aji. waaw waaw ma waa aji lu mën a dugalee client mhm. du wuyu téléphone nii waaw ma sonn si pour occasion jot ko mën xaaral ma woote samay annonce parce que élève bu bees bi mhm. maman mhm. ma ne ko ana Ousmane mu ne mu ñu ci biir cabine bi dégg moom sax la nee dafa yàkkamti mais aji man surutu ba di wuri téléphone dëgg la sama xel mi ñaaw. dëgg la ma ne ko defal tout pour xamal ma li aji di wax demal suruku ba nga déglu ko ndànk. dëgg la waaw mu dem suruku ba. waaw taxaw ci ginnaaw dégg aji naan. waaw Sonko de dugg na ci kër gi. waaw mais dootu ko defati. waaw man ngeen a départ ngeen ñëw. waaw bala ngeen a yegg si da ngeen fekk ñu bare. waaw ma ne ko dem leen ngeen def ko cadre may. dëgg la comme que moom ginnaaw rek lay maase du fi yàgg. waaw mu ne ma waaw. kon de maman Ba kon de amul xel maman Ba amul xel waaw. Mhm. waaw. aji toog si kanam mu génn mu bu mu génnee waaw ñëw fekk sama jëkkër bi si biir néeg bi mu toog waaw mu yëkkati cinquante mille mhm. jox ko sama jëkkër bi sama jëkkër bi jël xaalis bi waaw sa lekk la koy indi. waaw yow yaa ji fonkal nga. dëgg la. Mhm. waaw. waaw. ñëw na sonee mhm. ci biir cabine bi. waaw. aji war a ci biir cabine mhm. bi. waaw. aji deful loolu. Uh-huh. aji dem taxaw di wax dix minutes. la. dégg nga kan la aji doon waxal kan mhm. question gars yi partagé ba di ko wax ne ko like yomb na nag Sonko yegsi na ci biir kër gi waaw waaye tey la koy mujj defati dootu ko defati waaw man ngeen a départ ñëw dégg nga mais maman dof la ah. mama ba boo déggee loolu doo ko doo ko wax sa mhm. patron. dëgg la yomb mhm. mhm. dëgg la. waaw complot bi quoi la bëgg wane moom. Mhm. ñan ñoo war a mën a départ. Mhm. complo comploteurs yi. complice bi parce que ay preuve la ut nee nañ. Mhm. waaw. lu tax aji. waaw waaw. waa ji da koo di ko violé. dëgg la. aji kay moom ba mu amee beneen masse ñu koy def quatre mai. waaw. Mmh. ci yoon. Mmh. ko tax a jóg waaw. Mmh. parce que da ko bëggoon piégé man yu la bëggoon gars yi xaaral ma pause fi tuuti xam nga ñoom Pape xam nga ñoom Pape Alé la ñu war a comprendre Sidi Ahmed moom weddiwul complot bi de. Sidi Ahmed weddiwul complot bi ñoom nee nañu complot am na mardi parce que Sidi Ahmed ba mu demee gendarmerie dañ ko wax lan moo tax nga jàppale xale beeg yooyu mu ne dañoo xam ne bu Adji Sarr génnee wax ne Sonko daf ko violé kenn du ko gëm kenn du ko gëm ndax Sonko kon il fallait ko ñu am preuve bëgg am preuve moo tax Sidi Ahmed di jàppale nee na day jàppale xaritam mais loolu mooy complot même bu dee yow da ngaa bëgg am preuve mais loolu mooy complot loolu tax Sidi Ahmed dem fa Sidi Ahmed nag nee na fa demee lëndi duggul nee duggul mais même bu duggul même bu duggul lan la fa doon def lan la fa doon def lëndi même bu duggul xanaa da nga bëggoon bu Sonko di ñëw nga nga nga photo ko wala nga filmer ko mais tamit il faut que ñu def très attention bañ a gëm lépp lu ñu Ndeye Khady wax parce que man xanaa Sidi Ahmed doful dof bo xamné ne yow yaa ngi bëgg piège Sonko boo piège xana sax di nga dem taxaw ci bop koñ ba mais yow nga ñëw tok ci téw nee nga nañu ponkal la da nga ñuul da nga ponkal xana boy bëggee piège Sonko di nga laqatu mais na nga ñëwee nga tok ci buntu kër gi nga xamné Sonko bu ñëwee bu la gissé sax xel bi mëna ñaaw Sonko bu la gisee xel bi mën na ñaaw mu daw mais mais nag moo tax ma ne il faut faire très attention mais il paraît que dàq nañ ko fa ñaari yoon ñetti yoon après mu dugg mais moom nee na ba mu demee gendarme moom nee duggul mais dugg naag duggul lii wóor te leer moom nangu ne ne mi ngi fa woon loolu mooy complot ndax yow fan ngeen gis nit bu ñuy violer ah? nga bëgg japp nit pour am ay preuve te bolé wo ci police man de yuma gis yëpp police lañuy lañuy lay andal ndé xadi ndjay té bu démon police wax leen né waji ji daf ma bëgg violé légui kay leen ngeen jël ay caméra caché ak ay ki num mu tudd ngeen def ma sous écoute ma wo waji ngeen xol bu ma commencé massage rek dina commencé bu commencé rek dina def ben signal comme su ma ne su ma yuuxoo wala par exemple après ngeen daw ci ñëw mais non non qui ont la police ont nit la wo pour la mais lolu yow nan la nit di violer hein nga bëgg ay preuve légui la bëgg mu la pour nga am preuve mais lolu amul sens nit violer la pour nga am preuve da ngay dem mu la ont nag lolu nak mo mo mo nakari mo euh, euh, la la comprendre mais bon mi def mais ci ben côté je pense que Sénégal yépp pas d'accord nañu pas d'accord nañu ne preuve bi viol bi viol bi pour pour pour procureur wala le juge pour prouver que ça va être très très très difficile ça va être très difficile mhm. hacker dugg ci système bi génn ko parce que. waaw hacker hacker waaw. xam ñuy da ñuy di yëttu di message waaw di wax hacker yeeg yooyu. non je ne pas qu'il y ait viol. booy yu garaaw yooyu viol amul ci système bi. Mhm. xool. waaw génn bagage waaw war mhm. nga ne kii da lay waaw yàlla def nga waaw mhm. ah, ah, gars yi xaar ma pause ma fii tuuti parce que damaa gis ku bind léegi di wax naan Clédor dafa piégé Assane Diouf gars yi il faut il faut attention il faut faire très attention parce que man mënuma wax ne Clédor espion la parce que jàpp nañ ko comprendre loolu léegi loolu lañ bëgg wax Clédor dañ koy jàpp jàpp lu nii boo demee sax nekkul. rëbës wala nekkul fenn boo demee ñu ngi ko dugal ci benn euh, hôtel bu nice wala même bu nekkee camp Marina lañ loolu ngeen bëgg wax noonoo non non non Clédor Clédor boo ko xoolee xam ne dafa dañ ko jàpp dix ans Clédor ci affaire maître Babacar Seye ba mu génnee ba léegi day xeex nguur Clédor àndul ak Macky Sall gars yi bàyyi leen yooyu bu leen jéem a jaxase xel nit ñi Clédor àndul la Macky Sall du espion Clédor de espion bàyyi leen seen wax yooyu piégé wul Assane Diouf ñoom ñoo def erreur nag ah mais nag erreur amateur la moom parce que ñoom dañu yaakaaroon ne WhatsApp gouvernement bi contrôlé wu ko ñoom erreur boobu lañ def dañu yaakaar ne gouvernement bi contrôlé wul WhatsApp mais Macky Sall information bu mu bëgg am WhatsApp da koy am ñoom dañu yaakaar ne wax ci téléphone direct ah moom orange foofu nga ngay amee problème mais dañu yaakaaroon ne WhatsApp ñu Macky Sall amuñu accès ci WhatsApp fofu nak lañ defee erreur mais bu leen wax ne Clédor c'est un c'est un c'est un espion parce que mom génn fi wax nit ñi da ngeen war a génn da ngeen war def li non non bay leen yoy gars bay bàyyi leen yoy yoy ça ne se dit pas quand même nit ki du xeex pour dëkkam ñu japp ko ba paré ngeen di wax yeen xamu leen passé Clédor xamu leen ko Clédor daf dañu defoon ñom li ñu wax attentat à la voiture piégée Clédor xam nu ñu def dañu jël ben auto auto ñu piéger ko auto bi explosé est-ce que ngeen histoire bobu yëg ngeen ko Clédor terrorisme lañ ko jappé won xeyna nak nag am na lu ñu ko jappé tamit affaire maître Babacar Sèye bi moom lañ ko jiiñoon mais aussi Clédor mom ci boppam mom nangu won na né temps yoyu xam nga rek il était ils étaient jeunes ils étaient radicaux mais mom ci bopp moom maa toog dégg ko mu wax ko day faatu sorti wal fajri dem leen ngeen seetaan ñaari sorti la ñaari émission sorti bu mu defee ak day faatu xaw ma nag ban la ci am na boo xam ne day faatu moo ko laaj mu ne ko yow dangaa def attentat nga def mu ne effectivement mais chance bi mu am oto bi ba mu explosé oto bi ba mu explosé kenn gaañuwu ci clé d'or def na loolu yéen est-ce que xamoon ngeen loolu génnee la moo tax moo tax bu gars yi di wax espion la di wax lii te tëdd na presque dix ans te doon génn affaire pétrole bi yëpp moo ko génne secret yi ci pétrole bi yëpp moo ko génne feer Palerme bi ngeen ñëw di wax naan espion la gars yi bàyyi leen ñu waay bu ñu ko jàppaloon sax d'accord mais comme jàpp nañ ko man kay wala sama xel doon tey ñu jàpp ko ñu jàpp Assane Diouf jàpp Guy Marius Sagna bàyyi ko mais comme moom jàpp nañ ko bu leen nekk fi di wax ne espion la quand même ah wala waa Macky yi ñoo koy wax. waaw. aji génn ndànk. waaw. layaam layaam. Mm-hmm. dox ndànk. Mm-hmm. dem ba ci jëkkëru patronam. waaw. jox ko cinquante mille yi. Uh-huh. après le viol. jooyu le supposé viol waaw. raxul. waaw. patul. Mm-hmm. dox normalement. ah joxe cinquante mille fay. dégg Ah. non du espion claro espion

Mm-hmm. nga ubbi ndànk mm-hmm. reer bi nga xam ne reer boobu. dégg nga ku la reer ku la reer. que ndaw si quarante mille wax na ah, nga aji. Mm-hmm. tamit partagé. reer ba waaw. fa leer. non gars yi sérieuse nag sérieusement sérieusement gars yi gis nga nga même bo faralee Macky Sall hein même bo faralee Macky Sall gars niñ nañu deug viol amu fi quoi buñu bëggé japp Sonko ci viol benen fan benen jour benen jour bu len nexé ñom nee 31 décembre ak 12 janvier 21 janvier bu len nexé ñu né jour yooyu d'accord bu la neexee ñu ne xale bi dafa biir Sonko moo ko biiral d'accord bu la neexee ñu ne Sonko xale bi ma massage na ko massage ko affaire bi ba am maniyu Sonko d'accord lu leen neex nañu wax waaye viol te certificat médical wax ne docteur bi xool na ko Ahmed Aïdara liir ko bu doon dëgg dañuy jëm jëli ay xanaa dañuy jàpp ay dara Ahmed Aidara lire certificat médical bi ne docteur bi ne waxuma la sax waxuma la viol mais kii tëddul ak góor ci fukki waxtu ak juróom benn seize heures de temps tëddul ak góor te dinaa la wax benn affaire yow nañ leen lay violer doo ut certificat médical gars yi loolu amul sens xale bi bañ ko bañ ko ba mu paree dafa woo gars yi kaay jël si leen xam la la wax gars yi kaay leen ngeen jël si ma gars leen rek moo leen intéressé woon est-ce que daanu na kon ñoom prélèvement moo leen intéressé est-ce que daanu na mu ne leen waaw ñëw leen jël si ma léegi bañ ko jël see dañoo jël dañ ko jël prélèvement bi maanaam mën niyu man loolu laa jàpp mën niyu génn ñoom loolu moo leen intéressé woon ñu jël mën niyu bi gaaw gaaw gaaw yóbbu ko hôpital testé ko waaye ci guddi googu lu tax defuñu visite vaginale inspection vaginale xam nga sax nuñ ko tuddee xam nga test vaginal ñu xool awra xale bi ci tàng-tàng bi ñu defal ko certificat médical xanaa du hôpital lañ demoon ci guddi googu lu tax defuñu ko defuñu ko defuñu ko parce que Adji Sarr lenn rek lañ ko laajoon man yu man yu man yu kii spare la ko tuddee nu mu tudd man yu man yu mën yu daanu nga léegi daanu góor daaneel ko yomb na massage góor daaneel ko yomb na soxlawul ngay am ak moom rapport rapport sexuel léegi est-ce que Adji Sarr Adji nag ba mu demee gendarmerie ci suba si ba mu demee gendarmerie le mercredi gendarmerie ñoo ne ko est-ce que am nga certificat médical xam naa mu ne aw ma ko ñu ne ko nag il faut nga am ko ci la dem ci beneen hôpital xaw ma sax man hôpital ba hôpital boobu ba mu demee docteur bi inspecté ko xool ne kii amul légion amul dagg-dagg amul deret amul maniw amul dara waaye docteur bi nee na kii mës na sëy ak góor moom sax dafa mel ne même mais ci su ma juumul su gars yi ngi naan cagalaak léeg-léeg lii mais dafa mel ne dañ ne xaw ma leen déchirure partielle de l'hymen kon moom dafa mel ne ndawam des na ba léegi gars yi attention ah du xale bu daan sëy sëy sëy nii rek chaque jour de parce que dafa mel ne hymen bi am na lu fa des loolu loolu il faut mu xoolaat ko mais dafa mel dégg dañ ne xaw ma leen déchirure partielle xaw ma Ahmed Aïdara dem leen ngeen dégluwaat tës tës bi Ahmed am na lu mu wax ci hymen bi maanaam hymen bi yëpp dañul de kon Khady Adji Sarr kon xëy na du koo xam ne daan ah je sais pas <laughs> je xaw ma mais en tout cas dal en tout cas en déchirure ancienne de l'hymen la wax en déchirure ancienne de l'hymen ah kon xaw ma mais man pour man hymen bo bu xasse dañ dañ na wala day des ci jigen gars wax len ma jigen ni wax len ma bo buñ la buñ la ki dévierger pour man hymen bi day jeex complètement wala day des wax len ma je sais pas qui dafa ne déchirure ancienne de l'hymen ancienne wax len ma way yéen xamu leen de Ki ne na desetul tous comme <laughs> autoroute à péage <laughs> Eh déchirure ancienne de l'hymen ça veut dire que amna lu fa dess. non xana amna lu fa dess ki ne na wax c'est longtemps eh Adji du bandi non de ah parce que dañ ne déchirure ancienne de l'hymen Xana amna lu fa dess. gars wax len ma yéen xamu leen nu mu demee hein? déchirure hymen waa léegi wax leen ma la mooy hymen lan mooy hymen wax leen eh gars yi wax leen ma lan mooy hymen pour man hymen day jeex waa léegi bu bu bu fekkee dara desu fa kan docteur bi nan lay xamee ne ancienne la de nan la dafa gis déchirure eh jëkkër ji nan la def ba gis déchirure nan la def ba gis déchirure am na lu fa des xale bi du bandi noonu am na lu fa des gars yi nañu waxante dëgg am na lu fa des déchirure en chaîne am na lu fa des hymen dafay jeex raja wax ñu wax ñu nu mu demee hymen day jeex buñ la buñ la déviergé day jeex looloo indi deret bi kii ne na day des non du des deret bi waaw ça reste ça reste parfois waaw loolooy wane ne kii yàggul yàggul du autoroute à péage eh, du autoroute à péage de xamna ben benn bu gàtt rek ben koñ Ben kii la rek ben koñ la rek mais du autoroute à péage des na am na lu des quand même hein déchirure en chaîne ça veut dire que Souleymane a disparu non ça ne veut pas dire qu'il a disparu que Limen a disparu non c'est juste pour dire qu'elle ne vient pas d'être déviergée sur qui n'est na égal <laughs> ah ah en tout cas dal mais de toute façon de toute façon de toute façon kon Kale bi, msne sey. Va, nenjak pouf. Msne sey. Men, men, joun bo boudal, goudou gougou, seyoun. Goudou gougou, seyoun. Wa, leg nenjeglou. Men, papa, ale, lim bougou ane rek. Lim bougou ane mwen. Ki ne, disyon ane mwen, sa fe lontan ke la ete diverjan. Ha, kon, sa ve dir ke sa fe lontan ke la ete diverjan. Wa, ok. D'akor. Wa, joun bo boudal, goudou gougou, seyoun. Goudou gougou, seyoun. Men, gay, li mo don nou ane rek.

waaw man daal li may wax rek li may wax rek mooy kii ne na ay ay waay Tina Tina Tina Tina nga ne nga ne xale bi péage <laughs> yàmbalang péage hee ah Adji Sarr xam naa ne xale bi am na bët wow na bët de ku ko bàyyi mu naan dey dem ci juge bi la jeudi kii ne na métro <laughs> kii ne na aji moo raw <laughs> ay waay bàyyi leen séeréer bi xale séeréer bi ay waay aji saar aji foo ne ou es-tu aji ay waay aji foo ne xaar leen xaar leen lan laa doon wax sax ji ne ku bëgg aji saar comme jabar ma sarax ma sarax ko te yàlla teg ay waay nee na gars yi nag ko nag yërëm naa ko parce que dafay dem ci juge bi dafay dem ci juge bi xam xale bi tiit na instant yi ay waay aji ay waaye aji tiit na parent parents mi gisatuñ ko kenn gisatu ko non metti na metti na xaaral xaaral léegi ñu déglu. ñu jàppal aji indi aji. Uh-huh. nga nekkul Gàmbi aji mi ngi senegal waaw. kii waaw. waaw nga dem ndànk jox ko patron bi waaw jëkkëru patron patron tijji frigidaire tijji frigidaire waxoo ne ko ki ma nekkaloon ak biir cabine bi def ma biir laata loolu yow ba nga defee sa massage carte mais ba pare génne nga waaw ka nga doon massé ci biir cabine waaw waaw loolu moom nangu na ko waaw waaw waaw ba pare may ko banaana may jëkkër ji banaana <laughs> bul fàtte boobu waaw waaw état d'esprit non fois encore au moins waaw waaw ndax pare nga

liñu bëggoon ci moom am nga ko ngaa bëgg liggéey Sonko pour mu takk la hmm, doy waar de waa nañ déglu rek ba waaw ba waaw waaw waaw mu génnee ko mu dem uh-huh. bu Sonko mu dem de génnewul Sonko mu dem parce que sànq tey démb ba nga génnaatee sa jëkkër ba nga génnaate sa jëkkeur sa jëkkeur dafa né Sonko da don sangu attention génnewul aj cabine ba mu dem dé daf ko genné ba mu ko après ci limu wax Sonko dem sangu mu dem si jëkkeur di ci jëkkeur né ko sa loolu sa jëkkeur ko wax démb motax genn di wax baxul sa jëkkeur ibrahim mo né aji ñew mu songko, ko ana Sonko mu Wow, ko Sonko mi ngi sangu waaw sangu bobu nak mo jaaxal ñep niñ déglu rek waaw mu ne yaayam da kaa yóbbu hôpital parce que yaayam dafa gis kanamam di changé. Mhm. mu yóbbu ko hôpital mu def test de grossesse. yaayam na ko da ngaa yaayam jël test de grossesse bi na ko dama koy génn sa papa yóbbu. dégg ko indil ma carton bi ma xam ma am preuve. waaw yaay amee preuve. Mhm. ak ah, si suba si. mardi matin mardi mhm. matin. mardi soir. mardi soir. waaw. dégg nga. waaw. waaw. Mhm. téléphone mu woo ma. waaw dakar bata ne ma finaa. finaa may wax. Mhm. man de lu ma lay wax si suba. waaw sama yaay neen damay dem kër ga. dindi ji waaw donc ay aji mhm. yow instant bi vingt trois heures jot waaw parce que na sonko lu yàgg sonko mi ngi mhm. génn vingt deux heures. waaw vingt trois heures jot na aji nekk ci biir kër gi dugg ko génn. dugg ko génn di wàcc di wuy téléphone waaw. xanaa kuy violé kay loolu yëpp doo ko tal. ku ñu violé doo tal yooyu yëpp. xanaa kuy violé doo nekk ci kër gi yekk ba suur. waaw. naan ba màndi. dëgg la. ah. waaw génne sa saak. Mm-hmm. jël ay yëre ay vax mu ñaari vax. doo tal loolu jour boobu. dëgg la. maa ko aji fooy génn vingt trois heures bii. Mm-hmm. cey way histoire bi cey histoire bi compliqué na. autorisation mhm. pour waaw ma ne pat waaw yéegal ci kaw terrasse bi. waaw nga taxaw boo génnee. Mhm. nga génn. waaw ma delloo waat ma maa. Mhm. ma ne ko ana aji mu ne mi ngi nii di rangé ay bagages mais aji de temps fi la. maman Ba. lu muy nocci de sama su demee dinaa la expliquer parce que mayut ma ma wax. waaw ma ne ko ah mu ne ma waaw ma ne ko waa baax na ma ne ko léegi defal tout. waaw buy aji di génn. nga mhm. ko toppal ba xamal ma fu muy dugg nee na moto Jakarta moo koy jël si. maa ngi dëgg la dëgg la waaw. di nax nit ñi mhm. aji le mercredi la dem. porte plainte mhm. teg ko ci. Mhm. sëñ nga ñu bi ci histoire bi ay waay jëlee ah non. rajo waaw léegi waaw gars yi déglu leen aji ba mu reeree ba suur dëgg la reer bu jóge reer daal maam xam naa war naa bakkane waaw reer ba suur ki ka woo ne ko est-ce que liñ soxla am nga waaw ba mu tontu kan la kooku kan la voilà ndax mission bi la santoon def nga ko kan la ok waaw xaaral ma daaneel ba pare waaw ndax mission bi la santoon def nga ko mu ne waaw kan la waaw gis ngeen Pape Alé fu mu bëgg jëm ah? lu tax aji waaw ay aji looy def xanaa da ngaa bëgg liggéey sonko da ngaa bëgg gëmloo mais Pape Alé mën na am dafa biir de mën na am dafa biir eh on ne pas on ne pas yaayam dee bu yàgg. yaayam yàlla loolu yëpp loolu yëpp gars yi histoire bi histoire bi dépassé na Adji Sarr histoire bi dépassé na Mama

ñu ngi woo Adji Sarr Mama Ba dinañ ko jëli bu yóbbu mu paré dinañ ko wat juge bi dina ko entendre mais fimi nek ni dafa mel gouvernement bi dafa mel gouvernement parce que cas bi c'est un cas politique gars il faut qu'on ait le courage de le dire ñom li leen gën intéressé moy aspect politique bi mo leen gën intéressé immunité am nañu suñu suñu suñu suñu euh, euh, euh, témoin qui est la victime am suñu victime ñoo contrôler papa mënu ko gis yaay mënu gis politique bi mo leen il faut qu'on ait le courage de le dire Sonko lu mënti def lu mënti def dafa Sonko dind Sonko ko mais affaire complot bi ñom jéemuñ sax maître djouf dafa wax wax am solo breaking news am naa ne ñu bëri ci yéen déggu leen ko woon breaking news breaking news breaking news maître El Hadj Diouf nee xale bi c'est pas la première fois muy porte plainte Sonko pour viol maître El Hadj jouf nee na Adji Sarr dem na gendarmerie porter plainte waaye ba mu porte plainte gars yi dañ na ko sa plainte bi baaxul amuloo preuve gars yi dégg ngeen loolu bu baax est-ce que dégg ngeen loolu bu baax mais loolu est-ce que dëgg la wala du dëgg Sonko nan lay nekkee ci dëkk bi nit porté ko plainte te Sonko yëgu ko kenn waxul Sonko ne ko mais fi bu leen fàtte ne Sénégal léppay seen léppay seen PV yi xool leen PV yi PV yi nan la def ba jot ci Pape Alé nan la def ba jot ci sa veut ko ñoom ñoom Sonko am nañu ay nit fépp. même gendarmerie sax am nañ fa nit. des fois palais palais day am ben jour papa Alé fii la tok mune conseil des ministres suba Macky Sall li ak li mo fa dara am Macky Sall dina wax li dina des fois papa Alé il est très très informé legui comment se fait-il que Adji Sarr nekk te na porter plainte Sonko pour lol mettre à la jour de njëkk na porter plainte pour viol gars nako non non non non il faut nga preuve léegi nak mom, il fallait que mu dem out preuve pour am preuve nak, mu jaar ci Sidi euh, Ahmed mais loolu du preuve loolu ken du ko tudé preuve loolu américain di wax setup, setup manam da nga piégé nit comme niko ko di waxee dàmbooj sa viol doo ko organiser musuñu gis victime buy organiser violam pour am ay preuve ndax viol du satch téléphone wala viol du ki day satch sama li man dama soupçonné sama nek xalé bi day satch kon xaaral ma def fa xaliss mepp ko nit doko mepp pour nous violer la te xalé bi loolu la def dafa bëgg mepp Sonko pour nous violer ko loolu tax c'est très difficile à faire xëy na tax jour jour jour biñu ñuy wax ne dafa am viol le mardi deux motax ki amul rapport amul rapport sexuel amul

waxal ci guddi googu lu tax defuñu enquête ñu xam médecin boobu kan la bi ko yóbbu avocat bi kan la Pape Alé Niang loolu la bëgg wane ne pour wane ne dafa am ay dafa am complot loolu la bëgg wane waaw léegi problème bi mooy problème bi mooy man je pense que Pape Alé Niang boo gisee mu def léegi est que xam na lu tax mu def léegi ñoom dañu bëgg rek affaire bi il faut ñu koy xam boo leen seetloo Maître El Hadji temps yi dafa mel dafa xaw a noppi depuis ba ko dàmbu harcelé teg ko teg ko choc dafa mel ni dafa noppi xëy na li tax noppi parce que xëy na dafa ne ñu ngi ci aali bi léegi ñu ngi ci aali bi comme juge bi day entendre day entendre euh, kiyam témoin am kiyam euh, la plaignante la dañ koy entendre jeudi xëy na loo tax maître en Diouf prendre du recul mais li nga war a comprendre mooy Pape Alé boo gisee ñuy def lii képp ku may attaqué man maa ngi defal Sonko travail bu bu bu bu maa ngi defal Sonko travail bu graaw parce que travail bi may defal Sonko mooy képp kuy défendre Sonko maa ngi lay teg fii nit ñi di ko dégg. même bu fekkee ne défendre mu ko directement maa ngi koy défendre indirectement parce que Papa Alé ñëpp xam nañu Sonko lay lay lay àndal waaye du ma tere ma it Sonko faa yi mu def faa yi mu def dama koy wax parce que démb jëkkëru xale bi moo ne. jëkkëru kii moo ne Sonko dafa sangu xale bi nee ko Sonko mi ngi sangu loolu baaxul ci Sonko loolu day wane ne Sonko deful mbaa xëy na deful massage ginnaaw rek yaa may dégg yaa may dégg mais li nga mën comprendre mooy fi mu nekk nii affaire bi dootul ay affaire viol affaire bi dootul affaire viol xam nga affaire bi lan la affaire sécurité nationale parce que ñu ngi wax di jàpp ay nit parce que dañ leen soupçonné dañ leen soupçonné dañu ndaroon taal dëkk bi man noonu laa ko jàppee ah Karim kii Clédor Assane Diouf surtout ñoom ñaar dafa mu audio bu génn bu wax ne suba on va passer à l'action waa passer à l'action boobu lan la Clédor lan la bëggoon def su moo ko Assane lan lañ bëggoon def loolu laa bëgg ngeen xam boo leen toppee nag ndey xadi boo leen ko toppee ndey xadi dina leen yóbbu daal di leen divertir ndey xadi Njaay daf ñoo bëgg divertir di ñu yóbbu te alors que moom kaa bi dakaa dépassé bu gouvernement bi faalewuñ ko sax Ndeye Khady Ndiaye gouvernement bi taluñu ko te pourtant liñ koy jiiñ moo gën a gra moo Sonko ñoo yem parce que moom dañ ne ko complicité de viol ba pare en plus yow prosénétisme yaa ngi cagalatuloo ay xale moo jëkkëram même bu dee dañ ko yërëm moom ak ak ak ak bébém mais lu tax jàppuñu jëkkëram lu tax ñu jëkkëram bu dé mom dañ ka yërëm ñu né ah bébé bi moo tax mënuñu ko tëj mais lu tax ñu jëkkëram parce que taluñu ko ñom dañu wone né politique bi mo leen intéressé Sonko mo leen intéressé nek lool nak mo dérange nit ñi Macky Sall bu démé ba tok RFI dafa na RFI la won Radio France International, ñu laaj ko ci Sonko lool ku mu doyil lan mo lay dal lan mo lay doy affaire bi dotul ndey khadi ndjay D'autres wax na pas important L'affaire bi c'est devenu une affaire Vous ça va impacter le Sénégal ça va impacter le troisième mandat ça impacte beaucoup de jeunes qui sont déjà en prison ça va impacter Sonko d'une manière ou d'une autre te Sonko la femme ni dañ koy ce loolu lay ndural dafa est ni Sonko parce que fi Macky Sall dafa jekku Sonko gaay ci lolou lañu wara a wax Macky Sall dafa jekku Sonko té petit à petit mi ngi wone la machine de Macky Sall et c'est comme un rouleau compresseur sans pitié mi ngi mi ngi déroulé wu dank dank patience Macky Sall dafa wone patience fi parce que bërët dafa am défaite Macky Sall dafa am défaite ba ñu jëli Sonko il a il a subi un échec cuisant mais mu xaaral bu kenn wax bu ci kenn wax bu ci kenn wax bàyyi leen man dinaa régler problème bi comme Sonko nee na immunité laa bëgg mu ne xaaral ma jaar ci immunité mais immunité ñëpp xamoon nañ ça va prendre deux semaines mais deux semaines yooyu Macky Sall dafa wane patience dafa wane patience wane patience wane patience Sonko gagné parce que Pape Alé Niang génn na interviewé Ndeye Khady Ndiaye Ndeye Khady Ndiaye jàppale Sonko Ahmed Aïdara génne certificat médical bi setal Sonko Pape Alé Niang génne PV bi liir li ko ci arranger setal Sonko ñu mel ni man génn wax ne viol amul ak lu mënti am man de loolaa jàpp ba ba fi may waxee génne tànk gisuma vidéo man mii tant gisuma vidéo Sonko yara pistolet ñaari pistolet yooyu ñu tudd il faut ma gis ko pour gëm ko ñaari pistolet il faut ma gis ko tànk gisuma vidéo Sonko yore vidéo bu def nii ci xale bi parce que loolu day nduru menace tant que gisuma vidéo Sonko summeeku comme ni ko yaaram ju juree tant que gisuma man yu ci vidéo duma gëm duma gëm relation sexuelle d'abord duma ko gëm parce que certificat médical nee na amul duma ko gëm léegi boo ma wanee mayu man yu ma ci vidéo wala ñu wane ñu gis vidéo Sonko def lool ken mu pour nga weddi ko ça va être difficile bu la neexee sax nga né montage la dugg na fii gën fi lool wax naa ko wax ko waxati ko diko répéter mais dama bëgg dama leen bëgg expliquer fi mu nekk nii Macky Sall avec les preuves biologiques mom loolu dafa melni lool loolu doy na ko ni ma gisee Macky Sall ñuy doxalé dafa melni ñom ñoom preuve yi ñu am même bu amul vidéo sax pour ñom preuve bobu rek doyna leen les preuves scientifiques Sénégalais yi dinañ ko gëm wala duñ ko gëm ñoon seen ñoom seen yoon nekku ci ñoom nu mu mel ni dafa mel ne loolu rek dooy na leen mais loolu rek est-ce que du taal dëkk bi loolu mooy question bi taal dëkk bi mooy bu ñu jàppee Sonko est-ce que gars yi du ñu révolté est-ce que gars yi du ñu révolté loolu nag yàlla rek moo xam yàlla rek moo xam mais pour le moment Macky mi ngi mi ngi mi ngi leen di faagaagal benn par benn mi ngi leen di faagaagal benn benn Sonko ben atou rek la dafa lay a joué ben atou rek la mom lay waji a joué ku sa lu ñuul daw Sonko def réussir kon bu démé ba wax dos au mur ko Sonko il a le dos au mur il est acculé c'est comme une bête traquée gaynde bu ko bukki wëree ba mu ba mu sësu nii ay bukki wër ko benn benn benn kii rek lay am benn atul lay def mooy mu song pour jéem leen tiital xam nga sonkoo nag bu demee ba gis ne ñu ngi koy waaj a jàpp lu tax Macky Sall bëggul ñu Macky bëgguñu wax plénière bi kañ lay doon mais lan lañ ci ragal ab kii moo ko wax Baara Dolli ba mu defee réunion bi démb ba pare dafa ne ñoom nee nañu dinañ dindi mbubb bi mais waxuñu kañ lañ koy dindi lu tax bëgguñu ko wax parce que xam nañu buñ ko waxee bu boobaa nag soo Sonko dina ne ah li jot jot na waaw Sonko nag nee na il va parle en plus en plus tey Macky Sall dafa xas Sonko gars yi daf ko xas billaahi xaaral ma génne leen li Macky wax non Macky tey li mu def gars yi c'est grave billaahi non ba pare nga dem ba rajo France internationale adduna yëpp di la dégg ngay wane ne Sonko daal du dara mépris Macky Sall tey dafa wane mépris non non non non Macky Macky il booy xaar leen xaar ma xool Macky France Macky xaar ma def Macky Sonko xëy na su ma defee RFI dina génn RFI viol peut-être peut-être dina génn Euh, Macky Sall l'Afrique c'est ses partenaires na non gisuma Macky Sall c'est info ok Macky Sall s'est exprimé sur l'affaire gars yi déglu li Macky wax si non non lii kii bi non article bi bëgg lire mais daal li mu wax je vais paraphraser je vais paraphraser je vais paraphraser madame. du ma la wax lu mu wax mot pour mot mais Macky dafa ne je ne vais pas me prononcer pour une affaire aussi basse. xawma waaw kay mi ngi nii non li li bu sonko bi la bu sonko bi mais dans Macky daal ni mu waxee mooy Macky daal nee je ne vais pas me prononcer sur une affaire aussi basse moi dans le na lii daal dafa dafa ni mu waxee daal xas na Sonko daal xas na ko loolu tax Sonko tamit daal di génne benn communiqué moom it mu tontu moom tamit mu ne dina ci wax léegi problème bi mooy Sonko bu génnaatee est-ce que dina wax mortel combat est-ce que dina wax mortel combat bi pa wala da wala avocat mi dañ koy wax ah bu le passé da ngaa parce que fi mu nekk Sonko rek moo mën a yëngal dëkk bi Sonko rek moo mën a yëngal dëkk est-ce que dafa naan gars ñëwaat leen sama kër d'une manière indirecte Sonko mën na génn mu ne Sonko mën na génn mu ne immunité bi buñ ko defee baaxul niñ ko defee baaxul parce que déjà dafa bëri ay ay jalgati kon bu ma buñ ma woowee bu ma juge bi woowee du ma dem comprendre nga loolu bu ko Sonko defee. Si bu ko Sonko defé duma ma bu Sonko immunité bi dama ne won buñ ko dindé 10 mais comme ñom dañoo jalgati déjà ñu ngi ni plénière bi sax ñu wax kañ la légui des dindé sama député je ma juge bu duma dem ñu jël si ma buñ may jël si ah ñun buñu bu mortel combat dina mortel combat ah bu boobaa bu Sonko waxee loolu nag ah bu boobaa ça va ça loolu rek moo mën a yëngal dëkk bi mais pas ay karam xurum xaak nekk fii di def ay conférence de presse naan nit ñi ñëw leen ñëw leen euh, euh, nu mu tuddati place de l' indépendance dañ leen du sax bàyyi ñu dem place de l' indépendance wala bu fa demee lan lañ fay def même bu leen police bàyyee ñu def seen rassemblement dañ fay nekk di wax rek après ñu ñibbi ndax Sonko sëgam Sonko moo dem université police provoqué wuñ leen booy ñoom bu leen police provoqué wul dañuy ñibbi seen kër lenn rek moo mën a tax xëy na booy génn mooy makki Sall ne day jëli Sonko par force sonkoo nag du may loolu Macky comme Macky mi ngi dem RFI di xas Sonko ah di wax li muy wax di ko mépriser dañ ko bëgg humilier yaa xam bay génn humilier Sonko naan kenn comploté ko tubayam moo ko complot Sonko fi nek ni mais nak mom mo def liñ ko humilier Sonko mo def liñ ko humilier parce que xeyna mom mom mom mom moom moo moom ba dem milier bo xamne war fo dem ba tay gaay mais nak Sonko bu est-ce que day ñew rek nangu dal di ni ñu américain di wax roll over rek dal di ne ok def len ma ni nga def Khalifa Sall def len ma ni nga def Karim japp rek mu yobum est-ce que Sonko dina def bu ko defé dina teud de. bu ko defee mën na tëdd cinq ans de parce que Macky Sall da koy tëj ba deux mille vingt cinq parce que deux mille vingt quatre Macky Sall deux mille lay calculer parce que viol dañ ko criminaliser viol dañ ko criminaliser waaw te buñ ko tëjee viol dina romb cinquante dem est-ce que du nekk ay dix ans est-ce que waxuñu cinq ans xaw ma xaw ma sax ñaata at lañ wax xaar ma xool plainte bi lan ñaata lañ wax viol plainte Sonko bi xaar ma xool. article 320 ñaat il wax euh, article 320 dafa euh un emprisonnement de 5 ans à 10 ans le viol sera puni d'un emprisonnement de 5 ans à 10 ans gis ngeen kon sonko dañ koy en 2021 ba 2025 pour sûr bu maké amé 3e mandat nak mën na ko yërem dal est-ce que sonko dina nang wala day xeex mais xeex bi c'est risqué parce que mortel combat moom combat mortel moom dee mën na ci am xeex bi c'est risqué parce que boo Sonko dafa am ay garde arme bu ne damay xeex ah bu boobaa bu boobaa yora ça va être un bain de sang loolu nag ñaanuñu yàlla maare day taale yàlla bu mu fi am maare day taale maare day taale donc gars yi il faut ngeen def il faut ngeen xalaatee noonu xam ne affaire bi dépassé na Ndeye Khady Ndiaye Ndeye Khady Ndiaye c'est le dernier souci du gouvernement faté nañ ko sax booy xol Ndeye Khady Ndiaye gay faté fàtte nañ ko bu bu doon loolu jàpp nañ ko Mama Ba c'est le dernier souci du gouvernement fum nek le le gros poisson c'est Sonko lepp nak ci Sonko su Sonko le le dess ki nee xexu jola ju jeex lepp ci Sonko le dess Sonko bu ko nexé mu ah gagné nañ ma naa def ni Khalifa Sall def rek ak ni Karim Wade def man dama ne woon bu njëkk ba mën na am Macky Sall dina bàyyi mu sedd mais ni mu mel nii Macky mi ngi jàpp rek ah mi ngi jàpp kenn waxul mi ngi jàpp di tëj rek Macky nag laa mën a wax parce que moo fi nekk mais procureur ñu ngi jàpp di tëj kenn waxul mais pourquoi muy arrêté pourquoi muy arrêté parce que bu arrêté ko day am victoire voilà gis nga waaw kay Birame Souleye ngi nii tey ñu def ko mandat de dépôt ah mais mi ngi noonu benn par benn ñu ngi leen di nee naa la Macky dafa mel ne sniper xam nga la mooy sniper fusil à lunette la yor sniper mooy tireur d'élite Macky tireur d'élite la dafa yéeg ci benn immeuble yore fusil à am benn par benn mi ngi leen di wàcce fi mu nekk nii parce que xam na ne bu ñëwee jàppandoo ñëpp bu baax du baax mais benn par benn leen di wàccee waaw travail bi liggéey bi fi mu nekk dafa set de gars yi liggéey mag mais mais Sénégal di waa dikk dañu garaaw ñoom ñëpp ñu ngi leen di déglu ñoom ñëpp ñu ngi leen di déglu ñu ngi leen di surveiller sànq sax am na lu ma seetaan euh, euh, te kii euh, Clédor benn instant mu ne gars yi ñu ngi nii sama kër ñu ngi nii sama kër di ma waaj a jàpp Clédor ko wax vidéo boobu jotuma ko teg mais gis naa fi mu nekk nii Macky Sall da <laughs> affaire dal de noir na dal affaire du Sonko le dess tu Sonko le dess on va voir quel type de discours il va tenir affaire bi daal foofu la toll xam naa pour le moment gars yi ngi waxtan sen biir avocat bi ñu nan ko defal li may ñëpp xam Sonko faalewul avocat mais nak instant bi mom gars yi ñu ngi consorté wu ñom Diomaye ñu ngi jox sen xalaat El malik mu ngi joxe xalaatam Karim Khouroukha mu ngi joxe xalaatam euh, euh, Karim il a l'air très stressé gis nga ko sànq bañ ko wanee dafa stressé mais Ndeye Khady Ndiaye stressé wul Ndeye Khady Ndiaye <laughs> moo jëkkëram <laughs> macha allah macha allah ñoom de ah ñoom de ñoom de macha allah Ndeye Khady de Ndeye am na sax benn jigéen bu ko fi mu ngi naan pourtant kii maquillé wul defu dara mais xool ko mi ngi nii rafet jongo ma ñoom stressé wul mais kanam gi boo ko xoolee kanam gi dem na. dàmbooj kanam gi dem na saa yi prison neexul de prison. saa yi saa yi prison neexul te yow boo duggee xamoo kañ ngay génn loolu mooy problème laajal Assane Diouf Assane Diouf dafa dugg toog no huit mois mu ngi nii duggaat te prison Sénégal mooy loolu. ki nee na c'est grave ce que fait actuellement ah mais Macky tamit mais mais mais mais logique am lay def bu dee c'est un combat mortel kay man la wala yow ah affaire bi loolu la mortel combat kat dafa leer. Mortal Kombat dafa leer su ma la jàppee dinaa la tëj loolu lañ la wax mille vingt 2024 bu ñu bu ñu jëlee pouvoir bi yow dañ lay tëj dañu tëj Aliou Sall dañu tëj loolu boo ko waxee nit moom it lan lay def moo tax man bu ñuy def dialogue may wax chaque jour il faut que ñuy il ñuy baale di jéggale bu la neexee nga ne Macky ah 2024 te ngaa liggéey rek après 2024 nga jël say bagage nga dem kenn du la jàpp yaa tooñoon Karim Karim baal Khalifa Sall moom ñëpp xam nañ ne baal na Macky Sall yàgg na.

waaw léegi nag ñoom gis nañ lii xew Birame Souleye jàpp nañ ko Abbas Fall jàpp nañ ko Fatima jigéen yi bàyyi nañ leen parce que ay jigéen lañ mais dañ leen def contrôle judiciaire ça veut dire que saa yu ñu leen soxlaa mën mais jot nañoo ñam quatre quatre trois jours prison saa prison neexul prison surtout prison Sénégal yu bon yi man 19 gos yi laa gën a yërëm parce que ñëlé sax buñu leen jappé ay camp pénal lañ leen di yóbbu wala affaire mais boy dañ leen di dugal ci dambolo bi lañ leen di duggal paquetage bi lañ leen di duggal ci dambolo bi billahi fofu nga xamné ay tuberculose fa am ak ay ak fa am am ñoo xam dañ fa yag ba nga xamné seen bët yi dafa dem douche yi salte yi taap yi ñiy dof xex yi ci biir paquetage imaginel ñu duggal ci dambolo man 19 boy laa gëna a waaw gars yi affaire bi daal affaire bi daal lool lool la mais en tout cas le Sénégal est en train de changer Macky Sall il a l'air très déterminé il a l'air très déterminé Macky Sall te euh, Sonko aussi ah en tout cas daal affaire bi daal doy na waar doy na waar daal doy na waar daal yàlla ñu yàlla dolli sutura daal yàlla ñu yàlla dolli sutura ba jàmm am Sénégal ba ba xel yëpp dellu si comprendre nga mais daal seriñ kilifa diine yi dañoo noppi waxuñu ci comprendre nga waaw kilifa diine yi dañoo noppi kenn waxul ah man daal mënuma leen wax lan mooy xew en tout cas plénière bi ragal naa ko trop jour bi assemblée jël décision ne jour boobu est-ce que jeudi la ñu waxoon tey la mercredi n'est-ce pas ah tey la tey la tey euh, man damay ragal ne mën na am jeudi lay doon de

mais Macky ñu gis nga même buy def interview RFI lay dem wu faalewuñu gis nga même interview ay tubaab si tubaab yi dem def interview Macky Sall ci beneen yéen xam nga ngeen comprendre Macky Sall mi ngi ci beneen monde bi lay war ki rasulaay mooy pouvoir baaxul pouvoir day day pouvoir pouvoir baaxul Macky faalewuñu billaay barke rasulilaay waa gars yi live bi lool la woon live bi je pense que meun nañ ko meun nañ ko yemale fi xaar fi quelques commentaires tuuti rek mën nañ ko yemale fi mais en tout cas dal ah la situation est tendue Il y a beaucoup d'arrestations il y a des euh, il y a des gens qui qui qui disent qu'ils vont qu'ils vont marcher le samedi la situation est très critique Ah qui ne Macky Sall Macky Sall du xoolal duñu sax xool duñu sax seetaan Macky Sall mi ngi ci yeneen yéen xamu leen pouvoir nu mu mel moo tax billaahi xamu leen xamu leen pouvoir nu mu mel Macky mi ngi ci beneen monde yi am yëpp xolal jàpp yi da nga yaakaar ne moom moo wax dem leen jàpp Clédor wala dem leen jàpp kii du wax moom ba muy jox instruction joxe na instruction yàgg na ay dàmboo ji Macky du leen sax seetaan ay dumbelaan ak yooyu Macky daal xëy na buy seetaan peut-être Pape Alé Niang ñooñu xëy na dina leen seetaan boo demee sax du leen sax seetaan ñooñu ñëpp du leen ñoom ñoo ñu ngi ci yeneen ay Macky Sall yi taluñu waaw. waaw mais gars yi ñu def noonu merci merci Yande fii daal de façon ñun dañ fiy nekk rek di analyser euh, prison neexul kon nag booy nañ def attention booy ñuy jéem a encouragé naan leen dem leen fii ñëw leen fii ñëw leen place de l'indépendance def leen nii da ngeen fi sacrifier seen bopp rek. waaw toog leen seen kër yi laa leen wax toog leen seen kër yi nit daal li muy def na ko defal boppam man loolu loolu moom d'accord naa mais quant nit ñi di leen woo di leen wax ñëw leen fii ñëw leen fii gis nga keroog Sonko ba ñuy dem këram c'était spontané kenn woowul kenn ku nekk nag libre nga boo démocratiquement nga sentir ne am na loo xam ne boo ko defee police du la ci jàpp nga dem waaw mais mais ku képp ku toog Amérique di la wax dem demal fii demal fale demal fale ah jëlal sa taxi nga dem ah buñ la jàppee saay prison <laughs> neexul de prison neexul de man de du ma du ma kenn di wax nit ki demal demal demal def lii demal def laa moom du man lu ma dul digal sama bopp daal duma ko diggal xale yi waaw gis nga lu jot yomb comme dañ ne ñun ñoo fal Macky Sall nax nañ ko nax nañu ba toog fi il a été plus intelligent peut-être wala ñun am na lu ñu gisoon ci moom boo votal ko nañ ko nangul 2024 waaw defagu fi loo xam ne tey da ne noonoo dañuy fuqati nguur parce que dégg naa Karim xam Xax dañuy fuqati nguur fuqati nguur ci ban base ci ban base donc il faut il faut daa faire très attention xam nga Sonko li immunité am kenn levé ko kenn kenn kenn ken jalgatugul ay droit am est-ce donc il faut faire très attention 2024 nak bu ñëwee histoire la parce que Macky Sall ci bopom lolo ko indi fi lolo ko indi ci nguur 2012 dafa génn ci mbedd bi kon 2024 bu joté il va pas nous refuser ça mais nak li ñu war ñaan moy d'ici 2024 bu fekké ne daf ñoo nax politiquement comme nous mu ñuy naxee ci parrainage bi nax nax leen comme nous leen naxé ci parrainage bi nax leen ci référendum 2024 tam bu ñëwee mu naxaat leen ci ne constitution bi lii lii lii lii Idrissa Seck ànd ci ñëpp ànd ci ñoom maali gàkku parce que dégg naa ñu ngi waxtaan ak Malick Gakou keroog la kii wax yaa xam bay wax na ko nee na ñu ngi doon wax ak Malick Gakou et ni mu waxee daal bu leen Macky naxee nag ñoom tam ñu ànd ci mais bu boobaa ñun lan lañ ci mën lan lañ ci mën sëgëm Bill sëgëm Trump <laughs> sëgëm Trump moo doon jéem a sàcc élection fii Amérique <laughs> Trump moo bëggoon sàcc élection Amérique waxatuma la ak président africain gars yi dañuy dëgg le monde a ses le monde a ses réalités Donald Trump Donald Trump dafa bëggoon sàcc élection yi bëgg créer coup d'état wax gars yi dem leen ci assemblée ba ay nitam dem assemblée dugg assemblée yàqate fa dugg ci bureau président assemblée ba jël seen tànk teg fa sàcc fa ay affaire yóbbu billaahi nit dee fa dafa naan benn policier dee na fa am na benn jigéen bu ñu dóor bal loolu la xewee président ñu gañe na nga gañewuñ ma te nee na Trump nee na bu gañe woon day continuer waat waxuma la troisième mandat quatre mandat lay def day defaat trois mandat Trump dafa buggoon mel ni Poutine ni Poutine mel loolu la buggoon def sëgëm Amérique bi ñu wax ne c'est le champion de la démocratie moom la nguur nit dem ba dof mais nag loolu mënul am Amérique mais terewul terewul gis nga dem nañ ba assemblée def fa loolu kon nag Macky Sall boo leen sàgganee ba mu naxaat leen 2024 bu boobaa c'est problème opposition bi c'est votre problème ba ngeen mën a comprendre seen bopp lañ fi nekkal ku ci waa moo Macky Sall woo ci pet mu dem ñoom ñëpp a yem seen bopp lañ fi nekkal la preuve ñu ngi ni jàpp ay goos gisuloo benn benn député bu génn ci terrain bi ne dañuy marche ñoom ñëpp ñu ngi ak seen oto ñu ngi ak seen seen def leen attention booy yi man booy yi laay gën a waxal waaw lii nag positif bi ci nekk mooy xëy na xëy na ah peut-être société civile bi mu ngi commencé yëngatu mën na am nag dañ ne waaye Y'en a marre nañ woon nañu génn ñëpp commencé nañ génn mën na am dem 2024 bu jotee mën na am ñu ne Macky nag duñ ko nangu nag ko nangu mais loolu excès guñ fi voilà gay live lolo euh la na tegal pap leen Pape Alé na Macky raw Trump hi, Trump ken du moom Trump bu jëlone pouvoir bi hi aduna day tukki la ilaha illallah ñun dañu ak seen i jongama wa ñoo ñom ñing ci ñing seen jamm Macky Sall ken mënu ko wax dara parce que defagul dara lepp lu mu am daleen nax politiquement référendum mu nax leen parrainage mu nax leen dialogue national dàq élection euh, maire mais xool élection maire yi ni mu koy dàq di daq dafa leen nax politiquement mais yi rayagul kenn c'est vrai que mi ngi tëj mais rayagul kenn ñi ngi naan dafa bëgg nekk dictateur dafa bëgg nekk dictateur ah mais nañu xool xool ndax bu nit ñi génnee policier dinañu dóor bal man de gisaguma kuñ fi dóor bal mu dee dafa muus da di nax da leen di nax comme ay xale xam nga lan nga war a comprendre suñu opposition bi duñu ay gor mais xoolee Idrissa Seck ku la waxoon am na terrain yooyu yëpp di nga ko gëm ah dégg kii nee na maa ngi dugal Pape Alé man maay dugal Pape Alé Niang man xanaa yow seetaanoo tey Pape Alé Niang ba mu jeex Pape Alé Niang na yàlla mooy reye nee na ya Macky sax est-ce que xanaa Macky jël si ma nee na xanaa Macky bañ jël si ma nee na dina continuer di faram fàcc man maay dugal Pape Alé ngeen war a comprendre da ngeen war a comprendre ne Macky daal reyagul kenn te yàlla bu mu rey kenn yàlla bu deret tuuru Macky heure mën na jot mu jóge fi dem jàmm ak salaam parce que moom nee na du def troisième mandat lool la wax kon ci benn côté on on donner le bénéfice du doute xëy na li mu bëgg mooy buy dem mu jël ku mel ni ne Abdoulaye Daouda Diallo daa di fi teg mën na ne wala mu jël keneen ku mu wóolu daa di fi teg mën na am loolu la bëgg moom da nee na def troisième kon loolu mën nañ ko gëmal c'est possible trois ans yàggu yàgg na yàggul mais waa Pastef dañoo yàkkamti waa Pastef dañoo yàkkamti bu ñoom bu ñu sañoon jàmbaarloo bi léegi lay am Karim Xrum Xax nee na ba ñu war a lijjanti yëfu Macky dafa gaaw dafa yàgg Assane Diouf nee na jàmbaarloo laa bëgg te anamu mi ngi ci prison kii ne j'appelle à la révolte Clédor te anamu mi ngi ci prison Guy Marius Sagna anamu mi ngi prison kan moo ci topp ko baa waa Pastef dañu yàkkamti mais gis nga trois ans yàgg na yàggul yàgg na yàggul nit nit nit bul bul bul bul il faut pas forcer dans la vie Macky Sall bu heure fi war a jógee yàlla bind na ko yàgg na waxuma nag ñu fatalis yàlla yàlla yàlla bay sa tool déedéet waaye tamit gëm yàlla bi def ci baax nga bañ a forcer def loo warul def ay attentat wala ay ay ay ay ay ay di ay dara il faut ñu très attention waaw man dal fofu quoi voilà gars dañ nañ ko nañ koy presque def presque def nañ minutes presque 2 heures de temps te tay suba actualité dina ko top mais plénière bi surtout lay xaar plénière bi rek la bëgg xam kañ mais c'est sûr que d'ici jeudi ça va être très intéressant surtout avec Adisar dans les lèvres na Adji gars yi dinañ ko ko euh, assemblée bu dugg si dinañ ko filmer kat katu El Diouf bi dinañ ko filmer dinañ filmer donc les choses vont bouger quoi les choses vont bouger et puis on va voir on va voir euh, si va si Macky va va aller jusqu'au bout wala mën na am ci diggante bi ñu changer avis mais affaire bi daal nañ bàyyi mu sedd je sais pas mais nduruwu ko nduruwu ko waaw nañu xool daal nañu xaar daal ba xam ndax plénière bi dina am jeudi wala du am jeudi Sonko tamit nee day génn dans les dans dans les prochaines heures xawma ma kañ lay doon ndax tay lay doon wala suba wala gannaaw suba mais ce qui est sûr ñom ñi ngi wax fi mu nek ni ils sont très stressés gars il faut ngeen imaginer ñom Sonko fi mu nek ni jaxlé nañu ils sont ils sont stressés ñu ngi ñu ngi wax lan la ñu war def ku nek di joxe xalaatam en tout cas affaire bi dal doyna war doyna war trop il faut il faut vous mettre à leur place. waaw ba pare ñuy bàyyi xel jabaru Sonko yi tamit xam naa ni ils sont en train de vivre une situation très difficile ak famille Sonko xam nga yaayam ñu ñëpp daal nañ leen di ñaanal ñu ngi ñaanal daal ñu ngi leen di ñaanal jàmm te tamit nit dangay gëm yàlla waaw dangay gëm yàlla destin kenn du ko forcer te xaru yàlla diglewu ko fen Khalifa Sall li ko dal metti trop waaye jëlul bu ko neexoon policiers yi ba ñu ñëw mu ne day jël am du mbay ba ñu bëggee nangu këram def fa ne ne ñëw leen foofu moom ku fa duggoon da lay bal moom Abdou Mbaye ba ba huissier bi ñëw naa xaw ma day jéem nangu këram xaw ma affaire yooyu dafa ne maa ngi leen xaar barki rasul loolu nag ñun diggaluñu ko Sonko <laughs> nit da ngay gëm yàlla Khalifa Sall dañ ko jël tëj ko tey mi ngi nii génn Karim Wade tëj nañ ko tey mi ngi nii génn Nelson Mandela tëj nañ ko 27 ans Abdoulaye mii tëj nañ ko Macky Sall mii ndaroon nañ ko tëj. am na mu doon demee Abdoulaye Wade bu jëlee troisième pouvoir troisième euh, euh, mandat mënoon na na am ñu toj ko parce que il paraît que ñu ko doon jéem a takkal ci ay affaire politique moo salté voilà les gars merci euh, à demain incha allah maa ngi suivre information yi euh, j'espère que y aura pas de breaking news <laughs> parce que démb démb def naa benn show bu guddi guddi guddi guddi te pourtant y avait des gens ici mais c'était très important waaw tey moom yaakaaruma ne dina am breaking news bu waral loolu dama xiif dama gëmmentu merci les gars à demain merci beaucoup partagez likez abonnez-vous, abonnez-vous. vous Brumel. Brumaire Rip. bye bye.